asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen site Istikhama moo del siwaat tey jii di ànd ak yéen ci ab liggéey bi nag di liggéey bu rëy muy fondation Xaadim Rasoul Espagne ñoo ñëwoon tey fii si sëñ fii ci Daaru Tanzil di ko wax ab liggéey bu rëy boo xamante ni sos nañ ko ca Espagne mu ëmb mbooleem daayira Espagne yëpp mbooleem kuy yëngu ci Espagne reconnu par l' état d' loolu am nag ay bis yu mag yu nekk seen kanam ñu war caa ñu war koo ànd ak ñëpp loolu kon Cheikh Amadou Bamba Mbuub ak sëñ euh, sëñ Talla Jenn ñoo fi teewal mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekkoon Espagne dañ leen bàyyi kàddu gi ñoom ñu wax lan lañ jëlee ci sëriñ euh, alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah euh, sëriñ bi noo ngi dellu sant yàlla bu baax dellu julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa dellu gën a yaakaar xaadimu rasul sunu yaakaar yi tey jii ak bu ëllëgee di wax ne tey day fondation Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ba ci Espagne moo yeble woon fii man mii di Ahmadou Bamba Mbuub ak sëriñ Talla Diène mu ñëwoon ci sëriñ bi doon ko xamal ne ko lii ab siyaar la bu ñu indi woon di sàkku ñaan ngir dëgër di sakku ñaan ngir feddali liggéey bi ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci fondation Khadim Rasoul yëgalaale ko itam bis bu mag bi nekk ci sunu kanam muy le 4 septembre bii nga xam ne nii moom lañ bëgg a taxawal fa Madrid te loola lépp bëgg a feddali liggéeyu Khadim Rasoul rek moo ko waral fondation nag dafa nekk loo xam ni euh, euh, récépissé bi mu yor dafa étatique. dafa nekk loo xam ni lu kawee kawe la lu mën liggéeyal sëriñ bi ni mu ko bëggee la lu mën a indil njariñ murit yi ak jullit yi ak mboolem ku yëngu ci lislaam loolu mooy rôle fondation dafay liggéeyal humanité bi dafay liggéeyal doomu aadama yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ wax si woon sëriñ bi tey mu déggun bu baax itam ba wax ne eh, bés boobee ñu jàpp muy le 4 septembre bu ñëwee nañ ko fàttali ba wax ko sëñ Moustapha mii nga xam ni moom lañ àndal te mu yor télévision Istikhama wax na ko ko ñaari yoon ne ko bis boobu nag ma ko fàttali bala moo ñëw kon macha allah loolu daal laa xam ni moom laa bëggoon a wax ñi nga xam ne ñoo ñu yónni muy waa Espagne euh, di ko di ko wax nag ci turu sëñ Daamlo sëñ Daamlo nga xam ne mooy jëwriñ fondation bi sëñ Daamlo ñi nga xam ne mooy njiitu fondation bi. kon ñu ngi wax ci turu sëñ Daam Doole li mu ñu doxloo woon dox nañ ko sëriñ bi wax nañ ko li ko waroon wax lépp ba jàpp ne bis boobu da nee na nañ ko ko fàttali salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Cheikh Bamba li nga wax dafa rëy ba naa ah, santaat yàlla santaat Serigne Touba ak télévision bi ñu àndal amaat mbégte tey jii bi nga xamee ne Serigne bi fekk nañu ko Daaru Tamsir mu dalal jiite ñu Tisbar. ginnaaw bu mu jiitee tisbaar ba pare euh, ak yiir nu may nu taan waxtaan ak moom ci fondation Cheikh Ahmadou bi bi ko ci waxee moom mu ni nu mu tudd ñu ne ko Cheikh fondation la tudd wax ko bis bi nga xam ne mooy le 4 wax ni nañ ko fàttali bis bu ko ñorama noone woowaat nu jaarat suñuy tur taalibe sëñ Tuubaa yi li ma leen bëgg a wax mooy noonu santaat yàlla bu baax ak jullit yëpp santaat yàlla bi ñu amee jëmm ju tolloog sëñ Muntaxaa ci fi mu toll jàmm sëñ jox na ko waaye rawatina waa Espagne euh, ndam li nga xam ne sëriñ bi boo ko tuddee waa Espagne day am mbégte ñun nu sëriñ bi defal yàlla na wiir te yàgg fi te fi noonu nu a dem ca kaw mm-hmm. kon nag daanaka du jar sori euh, télévision bii nu àndal nag yàgg naa taxaw ci suñuy mbir te taxawal na du ba leer waaye nag itam cër bi ko sëriñ Mountakha jox moo tax nu gën koo bëgg ndax moom da koo ba mu ñëw laajaat ko nun ñii suñuy tur ñi yabal nu ñu tuddaat mu wax ko ko mu ne ko nag ma ko fàttali bis ko kon loolu lu sëñ lu rëy la kon daal tey jii na ngeen xam ne waa fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci njiit li sëriñ Dame Xarilo ak secrétaire sëriñ Babacar Thiakh suñu ko tuddee tudd nañ koo xam ne Espagne waa Espagne gépp di am mbégte nag santaat yàlla bi ngeen nu fi yebalee ban ñëw fekk fi mbégte moo xam ne ci sëriñ bi waaw ndax sëriñ bi kat dafa tëju ba ñu bari mun ko gis waaye biñ ko waxee sëñ Cheikh euh, Lappé sëñ Cheikh Abdou Latif dafa wax ni Espagne moom ni ko sëñ bi fonke luñ koy wax nañ ko ñëw wax ko kon santaat na yàlla baax xam naa ni waxi sëñ Bamba yi ak duñ ci mën a doole leneen waaye mbégte daal am na nan gën a góorgóorluwaat tam nag ci liggéey sëriñ Tuubaa yi ndax sëriñ bi kat may nañ doole te naa ko li ñuy song lu nu song am ko kon ñu ngi waxaat ne nan gën a góorgóor ci liggéey sëriñ Tuubaa bi gën a takkuwaat te a jàppaat ci fondation Cheikh Amadou Bamba bi ndax sëriñ bi ñaan na ci te sëriñ bi lu mu ñaan siyaara bi ngeen nu joxoon itam teg nañ ko ci loxoom kon na ci ñëpp gën a jàppaat gën ci liggéey sëriñ Tuubaa rek ne euh, Serigne Mamor moom Serigne Mourtada euh, bi nu koy jot dafa fekk mu génn dëkk bi waaye jël na sama téléphone ne ma àllarba wala alxames dinaa la woo nga dellusiwaat fi man bu ko defee itam dinaa ko yëgalaat sëñ Moustapha mu ànd ak noonu bu ñu àggee ba jébbal ko li nga xam ne moom ngeen doon jox ñu defaat déclaration bu mel nii man ak Talla Diène bu ko defee ngeen xam ni euh, sant nañu leen gërëm nañu leen ndax yabal nit ci Cheikh Amadou Bamba maqaama la yabal nit ci Cheikh Amadou Bamba xéewal la yabal nit ci Cheikh Amadou Bamba kenn xamul nu mu toll kenn mënta fay ñi la ko def asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi doon xool ñu seetaan noo ngi fii ci Daaru Tanzil lii lañ leen jëli woon ànd ak waa fondation Khadim Rassoul bi nekk Espagne ndax bu tudd Espagne moom sëñ bi da nga yëg mbég ci moom. Mhm. ak pas-pas ak yitte ju ñu am. ndax daayira yi mboolem ñu ñu doon lim leen di liggéey liggéeyloo fii ci Touba dafa naa ne ku ne gis na ko. ku ne teg na gis na ko kon loolu rek war naa doy. kon tey bu ngeen boolee ah, doon fondation reconnue par l'État. Mhm. loolu day gën a dooleel li ngeen def. Mhm. da nga gën a taxawu. kon bis baa ngi noonu waxtu waa ngi noonu na ko ñëpp jàpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh